gan gi euh, Boubacar Seye ñu gërëm Jacques Gomis ci xibaar yi Boubacar Seye moo jiite ONG Horizon Sans Frontières ñu ngi lay nuyu ak cam ngam ñu ngi lay fay. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey Boubacar démb la àdduna bi màggal bëccëg bi ñu jagleel migrants ak réfugiés yi église bi euh, daal di koy euh, sabab bëccëg bi nag dañu ciy waxtaanee lu aju euh, ci wàllu dignité humaine ak droits humains lëkkale ko ak immigration alors loolu le tey boo koy natt tolluwaay wi ñaari ponk yooyu ndax sàmmoonte nañu ak ñoom. waaw parce que euh, tey soo xoolee euh, nga jël deux mille vingt bi deux mille vingt et un mooy euh, statistiques yi dañu wax ni am na plus de mille cent trente morts ci premier semestre bi euh, comparé à cinq cent morts ci même époque bi en deux mille vingt hmm. tey soo nattee ci fi ñu toll nii il euh, y a eu plus de deux mille morts boo boolee Méditerranée centrale Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale donc ce qui fait que euh, tey euh, le chiffre est alarmant ñu wax ni aussi quinze mille trois cent personnes delloo si nañ leen Libye intercepté nañ leen au large des frontières européennes delloo lee si wan leen libi euh, nga def comparaison ak euh, deux mille vingt euh, ci même bi mu nekkoon cinq mille quatre cent soixante seize soit plus de trois fois loolu day wane ni effectivement tey en en matière de de violation des droits humains en matière de dignité humaine effectivement c'est un constat amer mm. et ces chiffres là dafa war a interpeller euh, sur la gestion scandaleuse de ces de ces flux migratoires yi nga xam ne ay problématiques yi se à travers le monde donc loolu moo tax ñun dañuy wax ni euh, euh, dans ce contexte mondial de mobilité croissante parce que foofu ñu war a cadre débat bi mais aussi de Covid 19 parce que tey euh, boo xoolee sax nous avons eu à à à à demander à ce que ñu xoolaat la gestion de ces flux migratoires là surtout période Covid-19 bi pour des pour des raisons humanitaires malheureusement tel n'est pas le cas et le constat est là tey chiffres yi am ñi dee ci géej gi ak ñi ñu toroxal ak ni ñu delloo ça devrait amener à une prise de conscience ça devrait aussi amener à une remise en cause xoolal suñu bopp parce que ci côté euh, dimension euh, humaine effectivement c'est la gestion est catastrophique. Mhm. léegi nag lan la communauté internationale maanaam àdduna bi def ngir euh, euh, loole di dignité humaine ak droits humains ñu mun a sàmmonte ak ñoom ndax gis nañu ni dëkk yu bari yoo xam ni ay migrants dañu faa dem ak i réfugiés daanaka seen àq ak yelleef moom dañu koy salfaañee. waaw xam nga tey li ñu war xoolaat la notion d'intégration loolu loolu foofu moo am def parce que euh, mënuñu wax immigration sans que amul intégration intégration mooy lëkkaloo bi nga xam ni moo war a am entre ak gan ñi ak ñi ñu fekki euh, ñu tënk ko ci une relation constructive euh, aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle foofu la amee des failles yaatal bi ñu war a yaatal gan yi moo tax soo xoolee effectivement des actes posés am na am na ay pacte mondial am na ay conférence am na yooyu yëpp mais en termes de résultat boo xoolee nous nous sommes toujours dans nos attentes parce que amul satisfaction bi nga xam ni moom moo ci war a am euh, raison pour laquelle raison pour laquelle Horizon sans frontières wax ni il faut que ñu xoolaat la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité bi nga xam ni tey euh, boo ko si ci contexte géopolitique bi nekk ak euh, les les les évolutions récentes de l'environnement donc bi nga xam ni tey boo gëstoo rek boo xoolee dafay mettre en lumière dafay les dangers multiformes yi nga xam euh, les nations euh, les peuples et les états tey moom la ñuy moom la ñuy traversé à travers problématique donc je crois que il faut que ñu xoolaat euh, ñi nga xam ni tey noonu la ñu tënkee loi parce que tey dafa nekk dañu nekk ci lu ñu mën a tuddee une mondialisation des flux migratoires Afrique ñëpp ñu tukki. Hmm. boo xoolee tey toutes les régions du monde euh, sont soit concernées par le départ euh, le transit euh, ou l'accueil hmm. de ces personnes yi nga xam ni ils ont des profils de plus en plus diversifiés jigéen a ngi ci xale yi ngi ci. Hmm. borom xam-xam ak ji am na sax ñu wax ni tey ce ne sont plus les plus pauvres que migrent parce que contexte mondial bi la nekk c' la mobilité croissante des populations. donc yooyu yëpp tey dañ ko war mais malheureusement euh, la gestion de ces flux Euh, soo xoolee euh, elle est exclusivement réservée à l'Europe moom mooy jël ay matuwaay moom mooy décider moom mooy daf lu ko neex. Hmm. donc il faut que l'Europe xoolaat boppam remettre boppam en cause sur la gestion de ces flux là. Hmm. parce que tey euh, bu ñu waxante dëgg nag te bàyyi caaxaan bi. la migration dafa nekk un facteur d'équilibre social et économique certains pays européens l'ont compris gis nga Angela Merkel l'avait compris en 2016 mu ubbi frontières yi mm. mais après l'Europe jiñ ko ni ko dafay exposer euh, tout le continent au terrorisme donc ñu xeex contre les amalgames xoo xeexaat xoolaat doxalin bi pour que jàmm mën a am ci àddina bi. Mm-hmm. su ma la déggee kon Europe dafa yor cëggal guyam di ko doxalee nu ko neexee communauté internationale bi di seetaan loola lan moo ko waral. waaw parce que xam nga en matière de migration pour des raisons économiques tey tey tey tey euh, la souveraineté appartient à ce pays d'accueil loolu mooy foofu la bi foofu le vide juridique bi nekk c'est là il faut rectifier parce que dañu nekk dans dans ci contexte d'interdépendance parce que il faut que ñoom ñu xam ni y a y a une notion d'interdépendance de globalisation et de mondialisation euh, foofu nag le problème bi nekk moo tax c'est là où il faut rectifier mm. euh, ba nga xam ni chaque dëkk da ngay def lu la neex France day def lu ko neex Espagne di def lu ko neex États-Unis di def lu ko neex yeneen ku nekk di def lu la parce que dafa am dafa am faille sur le plan juridique loolu c'est ce qu'il faut rectifier euh, pour at bi mën a am jàmm malheureusement tel n'est pas le cas mm. euh, au niveau des pays africains tamit gis nga y a pas de répondant pratiquement Euh, l'Europe amul répondant euh, moom mooy xool lu ko neex et la la gestion est exclusivement réservée à l'Europe muy def lu ko neex loolu aussi la ñu war xooraat la l'Europe ferme ses frontières l'Europe externalise la gestion de ces flux migratoires là donc ces frontières dañu nekk des lieux de souffrance euh, de de voire même des cimetières mm-hmm. alors que ne devrait pas être le cas mm-hmm. justement 23 septembre 2006 Sénégal ak France euh, xaatim nañu benn accord bu jëm ci xëy na ni ñuy gérer flux migratoire yi ñu tàmbali ko doxal 1er euh, août 2009 tey accord boobu boo koy natt est-ce que am na njeexital euh, walla ay ngaañte la jur ci ñi nga xam ne ñooy déplacé wu di migrants yi. waaw xam nga tey accord bépp accord bu ñu mën jël ci àddina bi. Hmm. te ñi koy signé jëluñu en compte la dimension humaine. accordéon du mu ci fenn ci foofu la ñu toll moo tax gisoo le dossier va à la traîne parce que dafa nekk dossier boo xam ni day poser des problématiques de dignité humaine donc loolu la ñu war a xoolaat parce que tey euh, ñu ngi signé accord yi tey boo xoolee euh, man damay wax ni y a une pathologie qui fait que euh, nangu ñoo xool suñu kanam ci rétroviseur bi la ñuy xool hmm. parce que tey la mondialisation daf ñu war a ñu redéfinir Euh, lan mooy la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé la mondialisation daf ñu war a permettre ñu xeex les questions identitaires yi nga xam ni tey moom moo nekk le facteur le plus exogène tey euh, pour rappel euh, depuis la chute du mur de Berlin dafa am ce qu'on appelle en Europe la disparition des idéologies donc tey euh, les questions identitaires les questions de repli identitaire dafa jëlaat le dessus sur la situation ba nga xam ni la migration dañ ko jël comme le contraire de l'identité tey tey tey migration marchandise électorale la en Europe hmm. ñii nga xam ni dañu échoué sur leur idéologie classique ces dirigeants européens et sur l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique hmm. donc yooyu yëpp tey lu ñu war a xoolaat la ba tax na tey pour jàmm addina euh, pour euh, yi toroxal bi nga toroxal ak dignité humaine bi nga xam ni ñu koy violer il faut que ñu xalaat loolu moo tax ñun ñu proposer euh, beneen beneen beneen stratégie la gestion de sécurité immigration paix sécurité mais aussi dañu wax ni il faut que ñu xoolaat la convention de Genève de dix neuf cent cinquante et il faut que mu am des réformes du droit d'asile il faut que l'Europe mu xoolaat euh, euh, le pacte sur l'immigration et le droit d'asile que loolu xoolaatuñ ko tant que euh, on euh, on n'aborde pas le sujet ci angle boobu duñu avancer parce que tey il faut lutter li ñuy wax le paradoxe libéral moom mooy lépp loo xam ni dafa baax sur le plan économique parce que ñëpp xam na ni migration facteur de recomposition des alliances facteur euh, d'équilibre économique la mais lépp loo xam ni tey euh, dafa dafa dafa dafa kii rek ci laal côté boobu ci ñu xoolaat ko ba nga xam ni tey la sécurité boo xoolee euh, ñi nga xam ne les dirigeants yi nga xam ni dañu échoué sur le aujourd'hui ils surfent sur ça. Hmm. donc la sécurité dafa nekk en danger pour des raisons sécuritaires. Hmm. loo wax ñu ne ñu ne terrorisme donc amalgame yooyu tant que dindiwuñ ko xoolaat yenn lois yi parce que c'est des lois caduques. c'est des lois qui datent de 1950, 1948 euh, avec la déclaration universelle des droits de l'homme. Mmh. Je rappelle qu'en 1948, les, les, les, Nations Unies ne comptaient que 56 États. Sénégal beaucoup loon dëkk yu bëgg il faut ñu tabaxaat ci contexte bi ñu nekk. Mm. malheureusement blocage boobu moo am obstacle boobu moo am et euh, tey euh, na nañu xoolaat toog waxtaan. pour trouver des solutions beaucoup plus pour protéger les plus bi ñu nekk mais mm. loolu moo amul lan mooy solution ci euh, kanamu Europe euh, ñeel réew yi Afrique yi nga xam ne des fois dañuy signé ak ñoom ay accord mais accord yooyu daanaka li ñu ci wax yëpp du doxee ni mu war a doxee ndax xëy na ba nu koy xaatim lanu ci tënk yëpp bu nu ko defoon dina am tuuti saafara lan mooy solution bi foofu ngir Europe xëy na gën a mën a defaraat doxalinam bu fekkente ni euh, communauté internationale bi yënguwul réew yi muy jëflanteel quand même war nañu mun a am benn taxawaay boo xam ne danañu mën a xëy na am astan ci tawat bi waaw fay yi jóge na ci ci ci fo naa euh, par exemple Europe amul amul répondant parce que au niveau africain euh, boo xoolee euh, l'Afrique n'harmonise pas ses positions migratoires. Hmm. kon ñàkk ànd bi ci Afrique moo. ñàkk ñàkk sabab xëy na yenn jafe-jafe hmm. mais mais effectivement parce que boo xoolee les pays européens ils s'organisent mais Afrique amul kenn wóolul sa morom. Hmm. kenn nangu liggéey sa morom. donc loolu moo indi par exemple nous nous avons eu à proposer euh, des rencontres une conférence africaine euh, sur cette thématique-là saytu harmoniser les, les les positions migratoires euh, ci biir Afrique euh, aussi pour mën des propositions à l'échelle mondiale mais Afrique deful loolu par exemple dëkk bu mel ni Sénégal soo xoolee waroon na mën a gis leadership sur les migrations internationales parce que vu la position géopolitique géostratégique du Sénégal plus aussi le Sénégal dafay dugg dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures mhm. dafay am ce mhm. donc loolu yëpp tey waroon na fexe tey le Sénégal jël ce leadership là convoquer une conférence africaine alors euh, taxaw euh, vu sa position stratégique parce que je rappelle que euh, l'Afrique est aussi mhm. pour cent des migrations intra-africaines plus même sont dirigées vers le Sénégal euh, est un laboratoire de mixité et de migration yu bëri hmm. donc malheureusement loolu moo amul Afrique amul leadership alors euh, les pays européens la euh, dañuy ñëw lu ci bëri les dirigeants européens pour régler euh, les problèmes donc euh, la fait l'objet de beaucoup de convoitises li fi nekk la ñuy jël euh, xale yi di ci géej gis nga gis nga gis nga gis nga Sénégal ce qui se passe avec la recrudescence euh, de ces de ces flux là avec cette nouvelle donne avec l'arrivée des pêcheurs yi nga xam ni tey Euh, mënatuñoo dund ci li nga xam ni moom la ñu moom yooyu yëpp ça fait ça devrait faire l'objet d'un débat de fond une réflexion approfondie pour des solutions alternatives mmh. mais tel n'est pas le cas loolu moo tax tey péché bu euh, toll fii et Nations Unies aussi jëlul ay matuwaayam Nations Unies wanewul fulla mm-hmm. parce que les Nations Unies euh, dañu ils ont échoué sur sur beaucoup de choses dañu taxaw ni patt pataaral di seetaan ku nekk di def lu la neex mm-hmm. jërëjëf Boubacar Seye leer na ñu amoon mbégte lool dalal ci matinalu réew mi FM tey yow yaa jiite ONG bi di Horizon Sans Frontières ñu ngi lay gërëm. jërëjëf Fatou jërëjëf Boubacar Seye.